jërë ngeen jëf mbokk yi mbégteeg cawarte la ñuy amati jàkkaarloog yéen fii ci Leewtoo TV ngir waxtaanee lépp la nga xamante ne bii ci wàllu làmb la bokk tey nag ñu ngi fii ci sumbu juun fekk si suñu papa ki nga xamante ne bii moom mooy Boy Kaïré fas yéenee waxtaan ak moom ci làmb wante fas yéenee waxtaan ak moom ci champion bi nga xamante ne bii moom mooy Bébé Diène gannaaw bi mu nekkee prison bu suñu borom dogal mu génn tey ñu fas yéenee waxtaan ak moom ci lépp la nga xamante ni bii jëm na ci làmb wante rawatina kii di Bébé Diène papa ñu ngi lay nuyu. Euh, fils maa ngi leen di fay euh, di leen nuyu di am kontante lool ci seen ñëw seen teewaay fii di profiter aussi di nuyu le directeur général ah Pape Thialis vraiment di nuyu l'ensemble personnel wu waa Leewtoo TV vraiment am naa kontaan de seen teewaay parce que yéen moom képp ku leen suivre ci làmb ji rek gis nañ taxawaay bu am solo bi ngeen ci def waaw di jàppale làmb di ci wax lu bare bari donc boo la soxlaa ñun nag bu ñu disponible rek dañu am sawar toog pour waxtaan ak yéen. jërëjëf Père yow tamit ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci sa disponibilité yow tamit macha allah ndax euh, papa ju baax nga yombalal nga ñu li nga xamante ne bii moom mooy jotaay bi euh, fi ñuy dooree waxtaan bi rek mooy euh, gannaaw ba ki nga xam ne moom mooy ba Diène génnee ci prison bi ban lan mooy sa première réaction. waaw sama première réaction bi xale bi génnee mooy bi ci njëkk mooy sant yàlla bu baax a baax a baax sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi di am nag mbégte lool lool boo xam ne sax xamuñu fu mu yem parce que xale boobu muy bébé Diène dafa bokk si ñun bokk ci làmb nit ñi bëgg ko mun doon jàmbaalu fakk tëdd boo xam ne ay jaloorem nit ñi gis nañ ko parce que Sénégal moom bëgg nañ làmb bëgg koo xam ne képp ku fi nekk di def nit ñi dañ lay sopp mais yàlla def euh, mu ne woon ci ay jafe-jafe ba jafe-jafe yooyu jeex na tey donc génn na fi mu nekkoon muy fële fale ci prison bi léegi ñëwaat na si ñun loolu daal am nañ si kontaan daal di gërëm nag la monde de la lutte le monde de la lutte ñu ngi gërëm ñëpp mënuñu lim nag ñëpp ku lim da ngay juum mais tey les avocats yi nga xam ne jàppale ne ko ñu ngi leen di gërëm di gërëm Malick càndum di gërëm Assane Ndiaye di gërëm daal kulluhum rek ses avocats yi nga xam ne xam nga maître Bass maître Fall metre Baba Diop vraiment xam nga Soumbédioune dirigeant yi ñëpp daal parce que il avait amoon na nag soutien euh, amoon na soutien de taille amoon na soutien de taille bu yéeme sax donc moom loolu xam naa ni dina si am njàngat parce que li nekkoon si ginnaawam di ko jàppale di ko ñaanal kulluhum rek ñu ngi lay gërëm di la sant macha allah. ñu gis yow tamit nga sonnoon ci trop macha allah. waa c'est normal xam nga boo jabootee ñëpp rek. Euh, njaboote dafa metti rawatina say sa euh, say doomu géñe bokk ci écurie bi donc euh, te sama communication dama yàgg wax ne man ñoom ñëpp samay doom lañu te loolu duma ko yemale ci ay ay làmmiñu kese parce que bëri na ñoo xam ne dañuy wax nii mais lay ne sa xol ba <laughs> du loolu mooy génn ca làmmiñ ba te man ñaanuma yàlla dund loolu mukk ci àdduna ñoom ñëpp laa jaboote ku ci am problème wala lu mu munti doon koo mun a doon ne ci équipe bi ñaan ñu ko yàlla muy guddi muy bëccëg dinañ ma ci gis parce que loolu lu dëgg suma xol la te lu ma gëm la parce que dama jël yàlla def ko témoin comme sama diggante ak sama njaboot nee naa ñoom laa jabootee kon nag loolu dama koy topp ko bout. Mhm. Euh, ñu bëgg na xam papa euh, euh, bàyyi bi bàyyi négandiku la wala bàyyi définitivement la wala wala juge bi war na war naa wuyu jiwaat juge bi. waaw parce que am na incha allah rabbi xam nga loo gis étape par étape la bi su njëkk nag bàyyi nañ ko tey mun naa ne tey par exemple euh, condamnation amu ci donc bàyyi nañ ko xëy na mun na am bu buñ toppee ba buñ demee ba si biir noo liee dina am parce que allah kulli allen am na loo xam ne condamnation boo amee pour mu bëreeti day xaw a jafe mais nag yooyu yëpp dara amu ci kon yaakaar yaakaar nañ ne li ci ëpp solo tey mooy mooy bàyyi bi mu génn ñaar sunu biir kon na ay entraînement am ba tey tey tey am na nu mu doon demee sax xam naa nag day prématuré mais gëm nañ ne xam na bu bu ñu nekkaat ak moom mu entraînement benn deux trois peut-être ñu ngi feere saison mais saison prochaine daal ñaan nañ yàlla si premier combat yi moom Bébé Diène mu bëri ko incha allahu rabbi kon mën nañ jàpp ne fi mu toll nii euh, bàyyi bin ko bàyyi mun naa tukki mën naa jël combat bëri. mun naa def lépp fi mu nekk nii macha allah tey tey tey jii xëy na nag staff loolu ñoo pareegul pour mu bëre. waaw parce que si lay dépendre mais tey jii bu fekkoon ne logiquement waroon na mun a bëri tey bu ñu indiwal avance ñu jël ko mais pour le moment bon xaw na euh, prématuré teel na fi mu nekk mooy day doog nañ koy bàyyi mu dal avec le temps làmb ji tëj ci ji incha allah ñu waajalaat ko parce que xale bu neex a waajal la ñeme nay entraînement gëm na boppam man dama ko xam bu baax a baax daa gëm boppam pour ma waaw mu wax du dëgg donc ku mel noonu nag lii mu jógee il faut ñu may ko benn temps bu ndaw rek bu gàtt mu defaruwaat entraîné waat ba repère rek lépp ñëwaat incha allah saison prochaine ñu jublu ci liggéey bi bu soobee yàlla. yéen waa écurie bi nan ngeen ko fas seenee teeroo na nekkin bi nan la fas yéenee demeewaat. waa bi ci njëkk dara du ci changé. non du ci changé loolu lañ koy gën a encadré rek. parce que nit àdduna jafe-jafe day dal ku nekk ba ci yàgg naa ko wax nitu yàlla yi kilifa diina yi ñu nga xam ne amoon nañ ay martaba yu rëy rëy rëy ci yàlla yenn saa yàlla daf leen doon indil ay natt yoo xam ne dañuy yéeme. mais après dañu bu ñu gëmee ni li naturel rek liggéey rek yàlla yóbbu leen sax fa ñu nekkoon yàlla jëlee leen fa yóbbu leen fu sore sore donc ñun xam nañu loolu waaw li ci njëkk mooy que incha allah benn réunion dina am avec les sages de l'écrit mag ñi dirigeants ñu toog waxtaan ak moom ku ci nekk wax ko sa xalaat nu mu gën a rafetee je pense que ne euh, bu dégloo waxtaan yi ak les sages conseil yi fañ ko naan tegal sa tànk bu ko tegee mu incha allah nañ yaakaar ne dootul dugg ci mel nii quoi. moom xam na loolu il est conscient de ça. Euh, tey euh, bu amoon euh, jàngat ba nga xamante ne bii mën nañ koo def ci li nga xamante ne bii mooy fan yam fa def wala weer yam fa def lan la mën a doon wala tey nga ñu doon nga ñu nga nga jàkkaarloo woon ak moom am conseil boo koy jox. Hmm. man li ma jàpp nag je pense que ne léegi sax lay gën a dangereux waaw parce que nekk na ci biir yenn saa yi ma seetu ko ñu waxtaan. mais il est hyper motivé <laughs> rawatina nag bu génn ñun am na lu ñu war a liggéey ak moom kon je pense que ne na gars yi xam ne <laughs> un Bébé Diène New Look mooy ñëwaat ci làmb ji te du ay waxu nii nii de man je sais li may wax xam naa ko bu baax a baax a baax dana ñëwaat. soo ko mos a seeti noo ko doon fekkee ci biir moral bi. waaw ndeysaan da doon désolé nag xam nga dafa moom du ma siggi xool waaw parce que dafa am benn sax ak benn ruuseel goo xam ne dafa am sama diggante ak moom. moo tax bu ma fa ñëwaan ne buy wax ak man sax du xool ci bët day sëgg day sëgg du bëgg sax wax ak man wa ilaa bu waxee tuuti sax day day tur ay xéewal waaw ah, donc nag yooyu yëpp ay yoo xam ne la fa lañ ko mën a jaare si lu bari xamal ko ne fii du sa place gënal góorgóorlu xam ne li ci kanam dara weesul parce que il est encore très la ba ba jën judduwul bu ndaw a ndaw la donc euh, ñu gën ko tegaat si yoon xam ne daal dans l'avenir il peut apporter quelque chose sa famille moom ci boppam ak l'écurie Soumbédioune am nañ si yaakaar te yal ko yàlla mottali ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa seeti yi nga ko seeti euh, lan moo la gën a impress impressionné ci moom soo fu musaa dem wala lan nga lan lan moo la doon gën a marqué ci moom ba léegi euh, di di des ci sa xel. waaw xam nga jàmbaar bu nekkoon di évoluer nii ci àdduna li ñaan picc buy naaw xam nga en plein neer dafa am nu muy mel bokkul ak picc boo xam ne boo ko jëlee comme ñi exemple ñiy euh, ñiy wër nii di jaay picc. dugal leen ci cavité da ngay xam ne picc yi dañu désolé amatuñu ay repères dañuy jaxasoo mais gis nga boo judd boo si jëndee benn ba sànni ko ba ba jënd ko wala ñaar ba sànni ko mu naaw ni dangay xam ne tey am na koo libéré donc ma seet si moo ko seet daal loolu la ma daan jox quoi que ne dafa xaw a ti sànq ne dafa timide ti ka sànq ne dafa am daal dafa am dafa désolé ti sànq ne du ki nga xam ne bu libre day day day foofu boo ko fekkee fii ak boy yi da naan kii di moom euh, gos boo xam ne xam nga talentueux bërëb bi day buy bëre fii gars yëppay kontaan ngir talent bi mam ak développement bi xam nga ak euh, fougue de jeunesse bi te yooyu man dama ko sopp ci ci xale donc ni ma ko daan gisee foofu boo ko gisee foofu gis nga mu atmosphère yi mënul doon benn parce que fee dañ lay condition dañ lay conditionné doo épa li nga bëgg a def en tant que jeune doo ko def parce que dañ la tënk donc ñaar yooyu bokkul quoi Euh, tey euh, buñ la doon laaj avenir am ci làmb moom moom moom moom jën ku ne xam na ne champion la mën naa bëre lool macha allah euh, gannaaw ba mu jógee fi mu nekkoon avenir am ci làmb fi mu toll nii lan la. waaw avenir ci làmb mooy li ma wax tout à l'heure je sais que c'est un lion blessé gaynde gu gaañu la te comme ni ma waxoon rek maanaam capacité yi mu mënoon maanaam bu fekkoon ne tey âge bi dafa avancé âge bi dafa avancé ba. nga xam ne tey dootuñu si am si moom yaakaar laa ñun dañ xaw a am problème parce que dañ naan est-ce que kii dana mënati liñ koy teg est-ce que est-ce que mais ba tey may waxee ni il est encore trop jeune donc ñun li ñu bëgg ci sport ak fu ñu ko bëgg a waat après ba tey potentiel bi mi ngi fi kon dinañ ko pousser pour nga xam ne ñu si kanam xaw ma ñan lay doon mais ces ces prochaines sorti képp ko jël di nga xam ne am nga combat incha allah. nga yaakaar ne du ñàkk du perdre ay repères non non non non c'est-à-dire euh, des fois sax du tagg suñu bopp mais xam ñun dañu bëri presque ay trente ans de carrière xam nañu ku ci nekk potentiel bi xam nañu ku perte ku mën a perte ak ku mënul perte te même ces repères là suñ ko téye benn un mois les repères vont venir maanaam ci wàllu liggéey bi la dafa am façon façon travail xam ne boo fa gis parce que euh, maa ngi koy nuyu sax au passage di ko féliciter. Euh, am na euh, kii muy Zarko bi mu fi mujjee bëre dafa gëjoon ci làmb ji ah, daf fi gëjoon trop daf fi gëjoon trop bi ñu ma laajee affaire dama ne na il faut gars yi def attention parce que gëj na fi mais mën na bëre te mën na ay quelque mën na ay quatre quelques clés bu fekkee ne am na ay sparring partenaires yu baax yu contact ak moom ak ak coach bu baax il va day day teel njimaat ay repéram man j'avais dit ça te gis nga ba ma ba làmba ñuy ñëwee gis nga euh, li ma waxoon dafa am parce que ñun du ñu wax ni fekk mbay guy gi ci dynamique victoire mu freiné ko dynamique victoire boobu man maa ngi naan maa ngi maa ngi maa ngi àddu sax mbay maa koy àddu ne ko attention bu fekkee ne combat bi ëppoo Zarko doole bul jàpp Zarko maanaam mag la du mag xale la te maanaam sportif la te am na façon yu muy liggéey rek automatisme bi day ñëwaat noonu la demee automatisme daal di ñëw peut-être mbay aussi maa ngi koy encouragé si biir bërëb bi mu mu euh, mu dugg euh, waa ji dugg si gàddam touché ko li yàq làmbam mooy ku dafa jël ku bu méttee métti ku bu métti la jël te làmb am na ku yoo xam ne bu dee mbër mu ndaw la nga jël ko il faut staff bi téye la téye la nga jël temps ñu wax ak yow ba tegaat la ci code buñ ko deful rek sa làmb après gis nga day parce que non li may wax sax <laughs> beneen dimension la. <laughs> yaa ngi dugg ci côté technique. beneen dimension laa wax ci technique waaw parce que mbër mu ndaw mu pare. pare war a ñëw jàpp daan dem ba ci biir làmb ji changé mm-hmm. foofu staff moo ko ciy mën a génnaat xam na ko ne tey làmb ji mm-hmm. du làmb ji yomb tey mm-hmm. di ngeen bëre combat bu métti mais ba dal na combat bébé ak bi mu mujjee bëree. ak Modou Anta. non non ah, ah, bi mu mujjee bëree ak Fourrière. Fourrière. sax combat bi Fourrière mi ngi naan man xam naa li ma daan staff moo ma ak coaching ma daan effectivement dañu bëri combat bu méttee métti combat sax xaw na gëj am. ci xeex boo boo boo xoolee ni waaw boo amee image après boo ko visionné di nga gis ne dañu bëri combat bu méttee méttee méttee xeex nañu bëri nañu xeex nañu bëri nañu xeex nañu bëri def naa ba dem nañ sax mi te bu si nekk ku si nekk teg teggi teg teg gi donc léegi en général yooyu staff da ciy am solo ak un ancien boo xam ne xam na làmb nekk na ci géew bi xam na lu neex xam lu naqare xam lu yàgg ak lu yeex. xam na kurfeñ ci diggante bët ak bakkan jàpp jàpp gémmiñ lu ci nekk day dal mbër loolu yooyu yëpp dal naa man perper nag kur feñ kur feñ ci bakkan ci diggante bët ak bakkan daa neex te de. man du mën naa jël coup ma am na benn sama benn sama kam ak Robert ko yàlla yem. doon na ma benn arrêt de boo xam ne ci bakkan. boobu xale laa mais nag boobu aussi ku ma ku ma laal ma xuri la mais jël naa coup boo xam ne man maa ko def parce que dama ñëw attaqué ko à l'aveuglette mu door ma remise boo xam ne keroog su fit wi dëggaloo la aw ma doole wala aw ma xale keroog ma weddi làmb ji. mais boobu aussi ay magama waroon. lu la ci génne li ma ci génne woon mooy amoon jom nag amoon jom amoon arñu ne damay reyanteeg moom tey doonoo mais danaa mag ñi woo ma ma déedéet jël nga ko <laughs> teeyal fexe ba yoot ko yoot fayu boo fayee ba jël ko bi mu jël yaa gën a féete ndax boo ko jàppee bëri daan ko donc moo tax des fois mag ak staff dafa am solo lool ci combat ak ci làmb waaw. mag mën naa bàyyi cim réew. comme ni koy waxe parce que ki la jiitu ci néeg bu lëndëm moo la naan mooy xam moo la naan toogal fii ak fii donc noonu la demee. mi ngi noonu euh, mais léegi bu ñu bu ñu bu ñu ñëwaatee ci ki nga xamante ne bii moom mooy euh, bébé Diène mi nga xamante ne bii presque waxtaan wi ci li ëpp ci moom la euh, conseil yi nga yi nga yi nga yi nga koy jox par rapport ak li ñu ko doon accuser moo def wala deful loolu loolu loolu loolu beneen affaire la mais par rapport ak li nga xamante ne bii moom lan moom lañ ko doon tuumaal lan nga koy conseil waaw li ma koy conseil bi si njëkk rek mooy que sportif euh, dangay ngay ànd ak say moroomu sportif bu bu le matin ngeen wootante téléphone boo leen waree dem dune ngeen dem dune boo leen waree dem salle ngeen dem salle boo leen waree dem géej ngeen dem géej boo leen waree ñëw si écrit bi ngeen ñëw si écrit yi donc conseil boobu dina bokk si li ñu koy conseillé waaw parce que euh, ku dul sportif booy ànd ak moom rek. parce que fa mu lay jëmale mun na am loolu dafa dafa sport dafa fiir sport dafa fiir te je pense que ne yi am na ci ay xarit am na ci ay doomu ndey am na ci ñoo xam ne tey buy tànk mi ngi nekk ak ñoom rek je pense que am na si yooyu ay ay ay ay ay ay souvenir lay doon pour moom te te loolu moom xam na ko bu wax <laughs> il a compris que ne euh, ñamu daan àndal ñu ñoo xam ne daaw ñu bokkuñu si làmb ñoo jootul ànd ak ñoom ndootu am nay ànd ak mbër yi tànk mi ne ànd ak mbër yi moom ñun suñu xel day gën a dal te je pense que ne loolu moom foofu lay teg tànkam xam na ko wax na ko waaw ci biir ba mu nekkee foofu wax na ma dégg naa waaw incha allah loolu nag loolu mu wax mu ne ci daal la nekk ci moom dëggu si ñoom ñun ñu ànd ak moom daal di ko puus mu dem incha allah. kon daal su ma déggee sa sa galanu wax mooy bëy day ànd ak morom mi bëyam sinon. waaw comme ni ko fay wax loolu bëy day ànd ak moroomu bëyam wala mu ànd <laughs> mais moom incha allah du ànd ak cere yi moom na ànd ak bëy yi rek dem ba doon nag bëy woo xam ne kii lay doon kaabal lay doon wala am na ñu jaxaluur <laughs> jaxaluur moom xanaa xeetu lébu yi ñoo koy wax jaxaluur kooku non bawal bawal yi fa bawal bawal yi mooy mbokk bawal bawal mooy bëy yu mag yooyu nga xam ne seen sikkim yi presque day day xaw a buubu bu la rombee sax am na benn odeur bu muy dégager waaw kooku mooy jaxal mooy jaxaluur jax kooku day ànd ak dafa yàgg ànd ak ay bëy moo tax <laughs> moo tax mu mucc. xanaa xanaa da ngaa da am ay mbokki bawol bawol. waaw man nag samay origine séeréer lañu man samay origine boo déggee njaboot gi sax boo déggee jéen foo teel foo déggee jéen mbañik ngóor jegaan ñooñ ay ay ay turu séeréer lañ ay turu séeréer ay dër man sama ay maam nag ñu ngi jógee fële jaxaw siin waaw jàpp tund woow jaxaar xam nga jaxaaw wa ilaa nga ne ñaaxar am na benn village bu ñuy wax mbul waaw ah, fa la sama maam bi jur sama yaay tey eh, fa la jóge muy mooy turandoo Diène Kairé waaw ah, fa lañ jóge ñëw dëkkoon fii Medina waaw ah, fii nag mooy mooy cosaan bi fii ci Ndakaaru Medina gi 23 waaw mais cosaan bi fële au village fi ñuy wax. ayca ngi noonu kooku moo nekkoon suñu papa eh, booy Kairé ñu koy jaajëfal bu baax a baax ci waxtaan bi nga xamante ni bii seqoon nañ ko ak moom amoon ci mbégte ak cawarte lool sekk ak moom waxtaan ndax macha allah eh, mbër la mbër la woon bëre. ba bàyyi bëre mais bàyyiwul làmb ji continuer di encadrer xele yi continuer di gunge xele yi continuer di partager xale yi ak li nga xamante ne bii mooy xam-xam bi nga xamante ne bii suñ borom euh, may na ko ko ci wàllu làmb muy expérience mi noonu ñu koy jaajëfal bu baax a baax ci li nga xamante ne bii euh, disponibilité bi mu ñu jox tey di jaajëfal Oumou Laye sama caméra woman bi nga xamante ne bii moom laa àndaloon di jaajëfal euh, Mamour sama chauffeur wante du ma ko fàtte moom tamit ki nga xamante ne bii moom mooy Maysa suñu réalisateur bi ñu àndaloon jaajëfal leen yéen ñi doon topp ci Leewtoo TV dig daje beneen yoon ak beneen invité jaageen jëf